yàlla kenn du ko xeexal da nga koy bàyyi mu xeexal boppam amula dooleem parce que ka nga xam ne moo tax ngay xeex ak nitam kooku am na doole yu toll ni sayul ak nitam su yëgee sa jubluwaay da nga koy bàyyi rek si yal na leen fi yàlla yàggal yàggal fi sunu góor gii bi jaayi siidil awalina wa aqarina waazu bii firi waareate waaraate pirim piir waaw la ay ndementi la ta tànk ju tooy mais arab yi ne nañu pirim piir mooy digle lu baax te di ko def tey leeral la muy jur di tere lu bon di ko moytandiku di leeral la muy jur ëllëg ko koy waaraate waaraate mooy di digle lu baax di ko jëf tey wax la muy jur ku ko def di tere lu bon di ko moytandiku te wax la muy jur ku ko def te loo rek lañ fi tooge te daanaka guddi jeex kooku may xam-xam xam-xam liñ koy tagg tagg tagg tagg ak li ko yàlla yi tagg tagg tagg benn coin rek la ko tagg benn boor rek la ko tagg muy fiqaw falawlaa nafara min kulli farqatin minkum taifa li yatafaqahu fi diin wóorutu baraa xamee sa diina xam sa diina xam sa warugar xam li ci war xam li nga ci war a moytandiku ñu ngi laa nuyu bu baax si di nuyu saraka ju baax ji kaar di nuyu kilifa yi fi ne yépp di niiru di nuyu jëkkër yi nii moom mbir mii ak seen nawle yi leen wàlli si di nuyu waale jullit yi parce que ñi fi daje ñëpp ñetti nit lañu li nit ñi bari bari ñettaat fi nekk awal la doog dama juum su ma juumee ngeen jubbantil ma ñett ñii jàngalu ñi ñi jàngaloo ñi seetaan si jàng yi am na keneen ñii jàngalu ñi ñu jàngaloo ñi seetaan si jàng yi ñii jàngalu lu iblis bëgg a dugg ci seen yéene ci seen jàng yàlla na ko yàlla dindi ba mu set mu fees place ba dell ñi ñi jàngaloo it luñ fi war a def ci manifeste bu nirul daax lu dul yàlla iblis roof ko yàlla ko yàlla rocci ba mu set wecc féete woofu ñi seetaan si gam jàng it noonu suñ borom nag dig na ñett dara waru yàlla dara waru waaye warlul na boppam yetti yëf ci ñetti nit dara warul yàlla dara war mooy loo xam ne boo ko defulee mu jural lay duma def ga mu war laa jural pay te kenn mënu koo fay ndax loo yowtu moo ko moom kenn amul kàttani jëfanteeg moom safaane pay waaye nag wàllul na boppam kataba ala nafsi raam na kataba ala nafsi ala alfu jar woowu ngaa gis dafa nekk alfu taklif bu gisee ma min daabatin fi ard ila ala mu ab mu employé ala jooju mooy day dalal xeli nit ñi waaye dara waru ko waaye gàddul na ñett ñii yett yii déedéet ñeent ñii yéent yii defe naa nag loolu dal na leen jànq ju baax ji di jàng-jàng yi ak seeni borom kër sun borom tabaraka wa taala ne na gàddul naa képp ku sant la ma ko jox ma yokk ci la in zakartum kii defe naa ne ndax والذكر على الشكر أتم الذكر والشكر على الذكر أتم الشكر xam ne cant gi ma sant yàlla xiiwal la cant ga sax sax sax ci boppam nga fàtte xiiwal gi sant cant ga ndax buñ la xiiwalee te santu la ubbi woo bunt bi yokku mais nga sant fàttaliku ne lii ma def muy sant gi waxuma xéewal gi de mais sant gi sant gi nga sant nag pour li ma sant yàlla maa ngi sant du tax ma sant du xéewal gi li tax yàlla xiir ma ba ma sant ko moom lay sant moo tax ñu ne wa sukuru ala sukuri atama zukri su ngeen sante ma dolli leen sunu papa Adama loo daana wax ne ñaari aaya yi de bii laa taamu ma ne ko ban loo mu ne yàlla da ne laaj leen ma ma jox leen adama nistajib lakum mu waxaat nañ ne la in zakartum la azidannakum su ngeen santee ma dolli leen papa adama loo ne man sant laa taamu ñaan leen ma ma may leen ma ne ko mu ne dalul xel ma ne ko lu tax mu ne ñaan ma ma may la loo ci góobe gar waaye ni la li la dal ba tax nga sant loo neex na la li la dal ba tax nga sant loola neex na la bu ngeen santee ma dolli leen daal la gën a dal sama xel ñaan leen ma may leen gàddul naa ndollante ku ma sant lu alquran wax la in zakartum la azidannakum waroon ngaa jàng grammaire rek ba gis baat boobu li ci li ci yàlla sarc ñaareel ba ku ma dimbale ma dimbale la ku ma seetaan ma xool la ku ma dimbale ma dimbale la te ku ma dimbale man yàlla kenn du la ma la nor lu alquran wax in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum in la in sart la in tansurullaha kooku mafaal la bokkul in yansurkumullahu kooku faayil la in yansurkumullahu fala gaaliba lakum bokkul nag in tansurullaha yansurkum ngeen ngeen am ngeen farlu boole ku leen mën a gidd ba ngeen soobu yoonu sant ma yoonu ndimbale ma day dimbale ma ma dimbale leen ñu ne ko moo yàlla lu ci loo songo te àggul ñu dimbale la ci ñun bu ñu fekkoon asamaan àggul sax ñu mën laa jàppale wala ñu fekk géej gi jotagul a pares ñu tibbi xorom yokkal la ci xorom si sama papa daan wax ne yàlla bari na ndox de mu ne boo xoolee géej gi xam ne yàlla bari ndox waaye li muy bari bari ndox li muy bari xorom a ko ëpp ndox mu toll ni ku ko mën a xorom ba mu saf te léeg-léeg cin te ticc cin sa cin te ticc nga daan dolli ma ma sàppali mu saf mu mu xorom xorom géej gi ba mu wex xat bari na ndox waaye bari na xorom de cin cin di te ticc nga naan demal ci sa yaay diw mu may ma ma sàppali ci ñaata laa wax yàlla fekk wu ñu su simb bu àggul ba ñu dimbale le mu ne dimbale bi du doon ci man Muhammad laa wax ngeen dimbale ko ñu ne ko fekk nañu mu départ mu ne bàyyi na fi sunna si su ngeen dimbalee sunna si dimbale ngeen Muhammad su ngeen dimbalee Muhammad dimbale ngeen ma man ku ma dimbale ma dimbale la te ku ma dimbale kenn dootul fal ñaata ngoog ñaar ñe ñaar ñeent laa waxoon ñaar laa jot a wax bu ngeen ma dimbalee ma dimbale leen bu ngeen santee ma dolli leen su ngeen tuddee sama pour ma tudd seen was uskuruni uskurkum uskuruni wala takfuruni mooy sikkar nii ni gars yi doon def sànq jamiya bi yàlla leen fi yàlla yàggal benn pat malaaka yi danaan la bul noppi wala sikkiru laay akbaru law kaanu yaalamoon ndax booy tudd yàlla yàlla da lay tudd booy tudd yàlla yàlla da lay tudd tudd wi la yàlla yi tudd nag ñoo ëpp tudd bi ngay tudd yàlla ni la yàlla ëppee pay bi ngay tudde yàlla pay ba la yàlla yi tudde ëpp pay booba la ni yàlla ëpp pay bi parce que yaa ngi ko tudde ci Ndakaaru yaa ngi ko tudde ci Grand Mosquée mu ngi la tudde ci azatul ilahi nga tudd ko ki fi nga tudd ko di ki fi ñëw démb dafa jóge ginnaaw ëllëg mu tudd la moom mi nga xam ne ñi fi jiitu fi lañ ko fekk ñi fi mujj fi lañ koy bàyyi kooku kooku kooku tudd ko am na solo sëriñ bi te wax naa ne ñaari yëpp mosula def tàndar Maodo tagg ku la xamul ku la xamul di la tagg bu ci dépendre daf laa daf laa trompé wala ku la xam ba noppi te bëgg la dëgg la mu xam di la tagg ci mbëggeel bu ca dépendre mu ngi mel ni ku la xamul di la ayibal bul mer wala xam na la waaye daf la noonu mu dëgg ci la mu xam employé noonu yi ñaar dañu jokkaarloo mais maintenant bàyyi xel taggu ko la xamul mbaa mu xam la bëgg la bu ci dépendre mukk ŋàññu ku la xamul mbaa mu xam la bañ la bu ci bu mu la naqari bu mu la lijjal xam nga taggu kan nga war a dépendre ki la xam piir te xam piir xejul diggante nit ak nit koo xam ne bu fàddoo dootoo ko gis bu tëjoo raw sa bët su waxee ndànk dootoo ci dégg bu noppee dootoo xam lu mu lu mu nar kooku mënu laa xam ki la xam mooy koo xam ne foo dugg mu dugg fa foo dem batam tegu ci yow booy dugg néeg tëjaale ko boo sànku sànku waale ko boo waxee ndànk mu dégg ci boo noppee mu xam li nga nar ko ko ko ko ko ko la xam waaw kañ alimu gerra waa najwa la sëriñ bi wax gerra bokkul ak najwa gerra mooy déey najwa mooy ndéey déey ak ndéey kii si suuf nga jaar kii si kaw nga jaar déey mooy ma ne nii Maodo te juguñu fi ñu toog te juguma fi ma toog waaye ñuy dégguñ ci ndey nag dañ naan seen pep ñun ñaar ba fële danda leen donte ca kaw la ñuy wax waaye danda nañ leen kii mooy ndéey kii mooy déey almusiro waaw kay est-ce que est-ce que ko waaw ko waay waaye kooku jóg waaw kay sëriñ bi indi lam addisu xursi yàlla nee na jaam bu ma tuddee ma tudd ko tudd bu gën ba ma tudd ndéem daf ma tudd ci wéet ma wéet tudd ko tudd bu gën ba ma tudd su utee mbooloo nag tudd ma ci biir mbooloo uut mbooloo mu gën moo ma tudd ko ci biir mbooloo moom uskuroon yaskoo ko fàttaliku leen ma bi ngeen wéree su ngeen feebaree ma fàttaliku leen fàttaliku leen ma bi ngeen bëggee su ngeen jàqee ma fàttaliku leen fàttaliku leen ma bi ngeen anee su ngeen ñàkkee ma fàttaliku leen fàttaliku leen ma bu ngeen nekk ci biir groupe bi buñ leen isolé yéen rek ma fàttaliku leen fàttaliku leen ma ci kaw suuf ma fàttaliku leen ci biir suuf fàttaliku leen ma ci biir bàmmeel ma fàttaliku leen bu ngeen di jéggi siraat uskuruni uskur gàddul na boppam tudd ku ko tudd gàddul na boppam dimbale ku ko dimbale gàddul na boppam dolli ku ko sant mu des lan mu des benn bi mooy ban uufi bi ahdi uufi bi ahdiku wa iyaaya farhabuni allahu akbar wa iyaaya farhabuni allahu akbar matal leen suma wóole rek yéen ma matal seen bos alastu bi rabbikum mës ngaa gis liif gu mës ngaa gis baagu liim liif tiim ci alxuraan ba mu daj baagu liif tiim ni gumel ni gii ci bisim fii ci buntu kër gi fi ngay jëkk a dugge ma ne baagooku baagu bisimi amul lu ko tiim li fa ngi tiimbaa ci baag gi am déggu leen li ma wax waaw lu tax ñu wa ñu warante te baa bu beru fële di baa liif beru fële di liif mu ubbi alquraan badiixu la badiixu bu foor moo ci nekk alquraan bari na trop ay xaraabatoo ngi ci ay balaaxaa ngi ci fasaxaa ngi ci badiixu gis nga fatiha ñaar fukki baat laak ñett di ma ubbi téere bi sëñ bi naa si ñaar fukki baat laak ñeent seetal fa fatiha nekk fa baqara fa fa naa si nekk cent quatorze saar mu ubbee ko premier bi vingt trois mots indi cent cent vingt deux bay indi cent vingt troisième def ko vingt trois mots ba bële tàmbalee xam nga badiyon bi mooy lan Maodo muy diir bañ ne iqra ak kar bañ ne wattaqu yawman turjawna fiihi ila llaahi summa tuwaffa kullu nafsin vingt trois ans la vingt trois ans yooyu la yàlla y wone ubbi saar wu jëkk bi def ko vingt trois mots fermé ko vingt trois mots alquran ba mu jaayee wàcc bàcc ci nabi vingt trois ans la Seydi Haaji Maalik nee na maa saala yaati loo yaati loo jibril yaati ما صلاتي له جير اليتيم يسيم نبي آيات من الحكم
yaay safi yaay safi dellu si day safi dellu si day safi dellu si dellu si kaay
من الفيل نبيا يا من العجم وذلي لا إله إيرتي أبدا أنا مؤمن مدنا ما تعرف الخدم وما سجعتي له جيب أنا يجيب نفسي نجعل من الحكم وفيا أبدا أنا ما مدنا ما طلب القدم
ما صلى ما فعل ما فعل ياتي له مبدا والعقد اسكي جزاهن الله خير الجزاء ما سال ياتي له جبريل gis nga taqlid bi taqdim mutaaqir la góor gi liggéey xilaafaat ba mu àgg si daaj Malik kenn mësu la gis ku mën a seggani moom xam-xam dëgg rek way bi maa saala yaati lahu jibrilu addayaji waxal loolu su la neexee neel maa saala jibrilu yaati lahu addayaji baax وأورمت عليكم سيد البحر ما دمتم حرما ما دمتم حرما أورمت عليكم سيد البحر
dégg rek
ما زال جبريل يأتي له أديجي أديجي من السنين يأتي بآيات فمكجل من الحكم من الحكم من الحكم جزاه الله عن أجمع Fatiha ñaar fukki baat la ak ñett moo ubbi kaamil bi naasi di fa ñaar fukki baat ak ñett fermé ko ndeke yàlla ngi signalé ne diir bi muy war a wàcc ci rasulullahi ñaar fukki at ak ñett la war a doon dëgg la inna ansalna fi laylatin mubarakatin inna kunna mursilina dëgg la alquran ngi wàccandoo ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaari weeru koor ci jóge lawil mahfuusi ñu indi ko ci asamaan si gàdd ko ci benn magasin bu ñuy wax baytul izzati muy ñëw nag ci nabi au fur et à mesure diirub ñene vingt trois ans wala yaatoonaka bi mislin illa wajjahnaka bil haqq wa wax seen tafsir maa saala masula dañ kan jibrilu ci lan yaati ci kan lahu di ko indi lan min al ayat fu mu koy jële min al akmi
gis nga yàlla ci fonk doomu aadama téeréem bi boppam la ci boppam la ubbee looy jàng booy jàng fatiha looy wax bisimi ibu saaxu
amul bisimi ibu saaxu amul bisimi jibril amul bisimi mikaayil boppam la wax bismillahi turam la ko ubbee ko fonk ni sa tax turam turi nit la ko tëje bismillah yi jëkk ci parti alquran loo mujjee wax téere bi jeex minal jinnati kuy naa si waaw kay mu jëkkee boppam mujjee nit jinne yaa ngi fi malaaka yaa ngi fi beneen fi ne ñukk fonk ni sa tax alquran yi yëpp baqara ci sut baqara yi yëpp ay ji wi isaata dayantum bi di ni ci sut moo tur ci ay yëpp yëpp amu ci nag benn affaire bu ci yàlla tudd nit ak moroom ma rek nit ak moroom ma rek commerce rek la ci wax ni ñuy leblente ni ñuy fayante ni ñuy doxalante tudd ca àjjana tudd ca safara tudd ca jibril tudd ca muhammad nit ak moroom ma nit ak moroom ma ba aaya boobu sut ci alquran yëpp mu dugal ko ci saar bi sut ci alquran yëpp maa saala mosula deñ bàyyi alaaji maa li ngay wax de kan jibrilu jibril ci lan yaati di indil kan lahoo ñeel Moustapha lan min al ayaati ci alquran fu mu koy jële min al xakkam yi ca njol màkk ñu ne ban dat mu ne addaye ju yaa dix yana regu mujj dix jim trois loo am ye ju nangu na dale fële mu yëjji nalu na dara fii muy yësi day am baat boo xam ne coxalaan la mbaa joom xob mun naa doxa côté bu nekk ni ki kullun fi fëlki kullun fi fëlki boo ko dalee fële muy noonu boo dalee fi lum àqan na la lakk borom àqan lum àqan na la lakk soo dale fii lum àqan na la lakk nga dale fii um lum àqan na la lakk mu ngi mel ni bi rabbi bi rabbi bi rabbi bi rabbi yoon ci yàlla yaxya moom la yonent wax ne moom rek la yàlla bind musula def bàkkaar du bu ndaw du bu mag yonent yi garanti nañ leen ne du ñu def bàkkaar bu mag mais garanti wuñ leen ci bàkkaar bu ndaw déedéet waaye bàkkaar yu ndaw yi yaxya rek di nit la nabi wax ku musula def bàkkaar musu koo xalaat musu koo nar musu koo def moo tax boo jàngee mariam daa gis conversation yi sakria am différence taat ak conversation yaxya dafa naa sakria moo waxoon ne wóolam ku bi rabbi xasiyan saqiyan saqiyan sakria la mais nag xasiyan yaxya la moom it mabtul mariam innahu basiruka bi xulaamin ismuhu yaxya lam najxal lahu min qabl samiya tur woowu yàlla ko fent sakriya ko jur sakriya tudd ko yàlla ko tudd moo ko ne doom ju góor laa lay may na tudd yaxya yaxya li mu mën tur yi mu benn mënu ko ndax boo dalee fii jëm ci boor ger bi muy yaxya boo dalee fii jëm ci bopp bi muy yaxya ginnaaw loolu góor dina tudd yaxya jigéen dina tudd yaxya ibrahima góor mën jigéen mën na ko tudd boo dalee ci mimara jëm baaw dina doonati ibrahima waaw parce que yàlla tudd ko inaa nubsiruka bi qillaamin ismahu yaaya badia boobu ci alquran ci laa doon jàdd pour àggale ñett ñi sidi abi bakri si na jël xaaji mansour xaaj malik na jël sidi al abdul aziz si أئمة الإسلام العابرين المعيبين مانجي وخني جرجن جف تتت بي اك نسبي القران فين لي جورومي تانت استغفر الله 6 جوروم بن تانت تانت غوني ام ناي بوروم ام لي تانت يوي سي خلات نانيو يالا بولي ني تي ñakoy sant sant ko it fañ koy sant juróom benn cant ci alquran benn bi mooy bi ñu jekkee ba taxaw ñu installé yëf yi jublu ci fe jublu ci sottal nag sottal wëtt gi yàgg na tara bi ci bàmmeel yàgg na digg bi yàgg na yorinte yi bari na te yëf yi tees yise jant bi ba mu yëse nit ñi genn wàlli meetar koo dendal dégg yuuram di bax xat xat xat xat surul azabu bu dul ñu yàlla jàkkle nga xam ne duñu fekk bis liñ ci wu ji yow may seen bi ji àndana yow may seen ya dañoo këru insaan waaye ndey saan waa andee loo sikra tratar jaanama fële lay jóge di ñëw bis pénc juróom-ñaar fukki junne yi ceen lañ koy yeewe ceen gu ne juróom-ñaar fukki junne yi malaaka ci tey bu fikkar ñu koo daaneel leen termi bi suru leen kal xas ka am na hu simalatul saf taxawaay boobu ñépp fël jaam yi jëkk sant yàlla yàlla ci bokk kañ la bu ne wantaasul yowma ayyuhal mujrimun salaam xawlan min rabbin rahim wantaasul yowma ayyuhal mujrimun allahu akbar féete leen boor eh féete leen boor au côté yéen yéefar yi wantaasul yow ma yool mu jëri moom na ñuy jullit yi fang leen foofu jullit yi dinañu wax ne alhamdulilah allati najina min alxawmi zalimin première cant ñu jiital na xamul fu ñu jëm jiital ñu rek ba ñu seen tax àjjana yi foofu dañ fa santaat alhamdulilah alladi hadana li hada ma kunna linahtadi lawla an hadana allah ñaari cant bu ñu àgsee ba jege nag mu ne dugg leen ñu santaat foofu alhamdulilah alladi ahlana daaral muqaama muqaama baax na maqaama baax na boo demee suratu soore bu ci ne yàlla amtulaay na ko boo demee ci sunu xut bu bàyyi si daxañ Malik bu baax bi mu def ci duwaa il mayit muqaama am na des ñu werante ci lu bari parce que ñu dañuy dañu fataa miim bu jëkk gi dañ ko raxaa di jàng muqaama ñii di jàng maqaama mais buñ ko gëstoo la ñu xam ne Sidi Malick moo jeexal grammaire ndekete kii ruban yu la kii sulaas yu ruban yu ak sulaas yu dafa am ci siixa yi su fekkee sisriqa maal ma ruban yu la mën nga wax muqaama bu fekkee maal ma sulaas yu da ngay jàng maqaama ruba yu mooy aqaama solaasu yu mooy xaama alhamdulilah alladi ahalana daar almuqaama li ci ëpp nag jamono bu yàlla marché lonk mbaa bu marché yëpp ñaari baat yu niroo ni fële ca yaasin yàlla min bayna aydihim wa min xalfihim da nga mas yëpp lokk